fii la ñuy commencé ak Pape Cheikh defi moo nekkoon dem squatter bureau yu Ndour est-ce que fekk na ko fa est que fekk ko fa est-ce que dañ ko dóor benn sox mu génnaat qu'est-ce qui s'est passé regardez tout de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

Youssou c'est-à-dire même euh, euh, secrétaire am liggéey ségul ah et Youssou Youssou bon il n'est pas là alors que fii mooy bureau je voulais juste le voir mais malheureusement Lamine fi mooy bureau Youssou ci suuf Nous avons rendez-vous avec Monsieur Youssou Ndour. À quelle heure À 7h30. De la table. Monsieur Pape Cher Diallo. Oui,

j'arrive. <laughs>